asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci ramadan muy weeru koor di juróom-ñeenteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàdda yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars ci atum ñaari ñaar fukk ak fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na li ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanuk bis bi yow yàlla ab jéggalekat nga te bëgg ak jéggale yàlla na nga ma jéggal allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni xadiisu bis bi jëlef na ci abi hurayra yàlla yàlla gërëm ko mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na ku dundal laylatul qadr ngir gëm yàlla ak sàkkutu yaaba dees na ko jéggal la mu jiitaloon ci bàkkaar xadis bi dëppoo nañu ci an abi hurayra radiallahu anhu an nabi salallahu alayhi wa sallam qaal man qaama leylata alqadri imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtoon dana tàbbi cinq heures cinquante et un juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak benn tisbaar treize heures trente neuf benn waxtu bu ñeent takkusaan seize heures trente neuf ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent timis dix juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili gee vingt heures trente et un juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak benn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 juróom-ñaari waxtu yi tegal juróom-ñetti simili di soo 19 heures 16 yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin